julli du wàcc kenn kenn kenn ci ñun julli kay jour bu la wàccee mooy yow danañ la wàcce saa bu la julli wàccee danañ la wàcce kon nag war ngay bàyyi xel bu baax ne borom bi santaane julli daf ñoo sant ñu jaamu ko ñépp ñoo ci jaamu boobu nag waruñ koo sàggane ndax jaamu yàlla boobu di julli yàlla may na benn yonent mu teggil ko taalibeem ndax yàlla may na ko yonent déedéet yonent musta wax benn saxaaba ko wàcce naa la julli bul julleeti yonent bi sañu ko lan moo tax dañu koy sant muy def nu koy tere muy bàyyi te ki koy sant mooy yàlla te yàlla ko sant julli waa lu yonent mënul ndax wàll yi mën na ko ndax am na benn wàll yi bu am sañ-sañu tere sa taalibi julli ne ko diw wàcce naa la julli loolu xam nga ni mënta nekk julli kan moo ko santaane yàlla taala wa tabarak moom moo ñu wax ni wa aqimu salaat taxawal leen julli te bëri na bu yàlla waxee julli rek azaka la cay teg kon yàlla moo ñu sant julli ndax julli ndigalal yonent la déedéet ni la ko yàlla sante yow nit ki noonu la ko sante yonent bi moo tax yonent bi amul sañ-sañu teggil ko kenn ndax am na droit teggil ko benn saxaaba déedéet julli ñett rek la wàcc ñett ngi nii julli wàcc na ki ci jiitu ani sabi xatta yuhtalam xale bu ndaw ba ba muy majeur julli warut ko su jullee it baax waaye warut ko loolu moo tax yonent bi bëgg xeetam di julli ba tax mu ne muru abnaakum bis salaa seeni doom dee leen digal julli bu ñu amee juróom-ñaari at nga leen di digal ñuy julli di jàpp su ñu demee ba am fukki at bu ñu julliwul na ngeen leen taw kon xale julli wàcc na ko fekk majeur ñaareel bi julli wàcc na kuy nelaw kuy nelaw rek julli wàcc na la ba nga yeewu suñu noon doonte dégguloo ko saa boo yeewoo rek da war a julli kon kiy nelaw du am bàkkaar ndax li mu nekk moo ko xëma yam àndatul ak xelam ñetteel bi julli waru mooy ku dof dof du julli julli waru ko keneen ku dul ñett ñii soo julliwul danga am bakkaar te soo ci deewee da nga ak sa borom tabaraka wa beneen bi mooy julli ndax beneen jaamu yàlla mën na koo remplacer déedéet amul benn jaamu yàlla bu mën a remplacer julli nit ki mënoo ñàkk a julli ba pare joxe azaka ne yàlla nangul na ma ko munoo ñàkk julli ba pare di faraxe ne yàlla nangul na mu amul benn jaamu yàlla bu dul julli la doole islam li ci ëpp doole mooy ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ndax loolu moo lay dugal ci islam deuxième degré bi mooy julli julli koor mënu koo remplacer julli aj màkka mënu koo remplacer julli saraxe mënu koo remplacer julli yóbbul nit ay ndogu mënu koo remplacer kon julli il faut nga julli jullit dafay daal di julli kon amul benn jaamu yàlla bu mën a remplacer julli yonente bi sallallahu alayhi wa li ma lay waxal ne la moom amul daraja wàcce nit julli kenn ci saxaaba yi laa ñëw ne ko damay ñaan nga defal ma intervention ci sama borom nga ànd ak man ma ànd ak yow ñu dem àjjana ndax dama laa bëgg lool lool lool yonente bi ne ko ahinni ala nafsika bi kasrati sujud maa ngi ñaan day loolu nga ñaan mën naa nekk waaye charte bi mooy na nga bëril julli kon julli ku ko bàyyi yaa ngi ci ay caaxaan mbokk yi julli moom la ñuy njëkk a laaj jaam bi yowmal qiyam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne awalu ma yuxaasabu anhu al abdu min amalihi salaatu فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر nee na li ñuy njëkk a laaj jaam bi ci ay jëfam yowmal qiyam mooy julli su julli gi baaxee li ci des kenn dootu ko xool réussir nga texe nga dem àjjana waaye bu julli gi yàqoo dara lu baax dootoo ko am kon képp ku bàyyi julli mënatoo am dara lu baax soo bàyyee julli mënatoo woor soo bàyyee julli mënoo natt azaka soo bàyyee julli munoo aj màgg yow waru la lan moo tax ndax da bàyyi lu rëy daje benn waaye ci arafat maa ngi dégg waa ji mi ngi ci kar rek suñu benn grand bu ñu àndaloon mu ne ma xoola diw ma gis ko maa ngi ko dégg moom mi ci kar ngi tagg sëriñam naan moom yi la moom moo lay wallu ci biir arafa nga xam ni bërëb bi gën a màgg ci bërëb yi muy wax loolu sama xel jox ma ne ma waaw kii est-ce que julli day julli ne ma ci julli ma ne ah, kon de ñëw màkk am du ko jëriñ ndax dem ba màkk doo julli dem ba màkk ne yow da ngaa bokk ci mbooloo mi dul julli yow sa dem màkk bëri xaalis la ak yàq waaye loolu xam nga ni kenn la ko nangul ndax li jiitu ci yow di sa farata moom mooy julli xanaa xamoo ku dul julli say mbir day na waar yonente bi nee na bayna rajul wa bayna shirki wal kufri sala nee na diggante nit ki ak bokkaale kéefër julli ku julliwul rek boo muy tuuti da nga nekk bokkaale kat mbaa nga nekk yéefër kon nag nga xool waa safara buñ jugee safara bay jooyoo malaaka yi dañ leen di laaj luñ leen di laaj dañ leen di wax nii ma salakakum fi saqar ana mounen tap kan safara pe gen lak, nyom hep nan yu ton tene lam naku, minel musol lin. Kon bakwi, julli mom, kuyabu desko, kon moun di tok pou fi, nalay lak. Nan yu nakanten, e de genan kutop kutim dou julli, kutop kutim dou wak, nangam nangam, lolo ay kya khan la. Dine islam, amoun kut julli, wat se ap wak, loulou nyat si nyi manawak, kuyidela wak, xale bu ma jëregut ak ku dof ku dul ñii julli war na la yaa ko wàcce sa bopp soo ko wàccee sa bopp nag ba bis penc jot lu muy wax borom bi na yaquulu day wax ne al insaanu nit mooy ka daawul jaamu yàlla ak ka weddi woon lu muy wax yow may din keroog ayna al mafar fan laa daw jëm fan laa daw jëm ndax àdduna jeex na amatoo kër amatoo feneen ñaari kër a fi def imma janna wa imma naar benn dem safara wala dem àjjana yàlla nañu yàlla may àjjana kon nag boole fan laa jëm borom bi ne ko kallaa déet waay laa wagar tey amul mucc de ay laa najaata Abdullah ibn Mas'ud nee ay laa najaata kallaa yàlla ne dama ni laa wagara tey amul mucc demal woo ka yaakaaroon mu teelaa julli demal woo sëriñ bala waxoon ni bul julli demal woo sëriñ bala waxoon ni bul woor demal woo kala waxoon nangam ngeen ñëw taxaw xam nga ni moo laa tadiru waaziratan wisra uxra nee na benn bàkkaar bu yenul moroomam bàkkaar katam kon nag bu la tee julli nga ba julli boo dee kooku du nekk lay bi yow yaak moom da ngeen di ànd borom bi laaj leen kan moo leen joxoon droit ci ngeen ñàkk julli léegi daal kàllaa borom bi ne dama ni laa wasara amul muccuwaay ilaa rabbika ci sa borom rek yow ma idin keroog al mustaqar mooy saxuwaay bi ñun ñëpp ci borom bi lañ jëm te fa la ñuy dal bu ñu fa àggee nag ñii dem dali àjjana ñee dali safara yàlla ci yàlla musal keroog bis tey jëm yàlla ne yu nabbahu def na xabaar al insaanu nit yow idin keroog bi maa qaddama la mu jiitaloon ci jëf yu baax wa axar ak la mu yéexe woon ci jëf ju bon lépp lu nit defoon yàlla dana la ko wax loo defoon ci lu baax dana toog moo tax allahu akbar bi nee na bis pénc ku nekk la nga jëfoon day teew say julli say woor say jaamu yàlla day teew say bàkkaar it day teew yunabbawu l insaanu yawma idin bi ma qaddama wa axar la mu defoon ci lu baax la mu defoon safaan lépp day na ci kan wetam keroog yàlla day defal insaanu nit basira aji xam la ala nafsi boppam ku ak si yawmal qiyam da nga yeewu moo tax Ali ibn Abi Talib nee na annaasu niyaam ida maatu stayqadu nee na nit ñi dañuy nelaw loo waxal nit muy jaay ñàkk jom di jaay ñàkk teggin di jaay réew di jaay dangaam waaye ku dekki da nga xam ne da nga ne cëy diw nax na wallahi bal insaanu ala nafsihi basira nga nekk ci àdduna rek ñu takkal la loola ci fas loola ci fas moom mooy nii rek doo xool lu dul sa kanam rek waaw sëriñ bi ne la man du ma julli du ma woor nga topp ko yow it doo julli doo woor gis nga képp ku julliwul wooroo da def lu gën a metti julleeg woor li la yàlla teg boo ko teggi koo sa borom teg la war sa kaw yàlla warut la de dafa waral jaamu yàlla sa kaw nga teggi jaamu yàlla boobu ab jaamu yàlla ñëw war sa kaw toog sa kaw def la comme ni ñuy def mbaam war la di la dawal di la bayloo di la liggéeyloo di la yelwaanloo di la ñaqloo di la sonnloo sa xel du xalaat mukk mukk mukk mukk yow daal est-ce que suñ bi da ngay xalaat bis boo dekkee di nga di kii dekke daf ma doon nax ah waaye lu muy jëriñ daf ma doon nax lan lay jëriñ kon nag réveillé conscience yi bu ñu leen nax yu nabbaw al insaanu idin bi ma qaddama wa axar bal il insaanu ala nafsihi basira nit a gën a xam boppam borom bi ne walaw alqaa doonte sànni na maadira ay lay lay bu la neex layal bu ñu la ne jaamu yàlla layal non non yéen da a bëri coow quoi yéen da ngeen di tas dëkk bi xam nga saay saay boo ko xañee yoonam rek mu wax lu ko neex waaye gis nga kii dund fii ci saay saay yowmal qiyaam dina xam ni caay-caay amul solo ndax yàlla ni mu koy rajee dafa yomb wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun rek lay wax e yéen bandi yi génn leen fële ku nekk bandi xam nga ni bandi la ku nekk saay-saay xam nga ni saay-saay ku baaxee xam nga ko de même fi ñuy dund nii ku nekk ci yoonu mbaax xam nga ku nekk ci yoonu mbon xam nga léegi nit day taxaw yow man tey vraiment man moom xam naa ne li ma nekkee moom vraiment baaxul ah yaa ko xam doo ko bàyyi amul kenn kuy sikki naan man baax naa wala bon naa xam nañ ko de balil insaanu ala nafsihi basira boo nekkee ci bu gudd bi xam nga boo nekkee ci bu bi xam nga boo nekkee jub xam nga boo nekkee ci dëng xam nga boo toppee muhammad xam nga boo toppee anti muhammad xam nga ku la neex lu la neex defal topp loo jënd jàpp la ku la noonu duggal ci taal bi doo ci dugg kon yaay responsable de tes actes actes yooyu def yaay responsable bal insanu ala nafsi maasira borom bi ne wala orta doonte sànni na bal insanu ala nafsi fatira wala alqa maasira doonte sax sànni na ay layam xam nga lay ci kanamu nit yomb na mais lay ci kanamu yàlla yombul